Alquraan wax na ne wattaqu fitnatan laa tusiibanna llaziina zalamu minkum xaassatan wa'lamu anna llaaha shadiidul iqaab wartandiku leen fitna ndax du ya li wolof di wax ay ci bopp borom ku jàpp ne da nga ci mucc yàlla mën naa def ci dogalam mu agsi ci waaye nag xam ne du lu daw nag ndax alam tara ilaa llaziina xarajuu min diyaarihim wa hum hazaral mawt فقال لهم الله موتوا كن ده كن منو كده كن منو كده aynama takunu yudrikul mawt walla kuntum fii buruujin mushayyada bu fekkoon da ngaa tabaxoon ay xunt yu xóot suñu fekk na rek si biir xunt ma rey kon loolu lépp ay sabab waaye li ci sababu saxir nag ginnaaw bu delloo ci yàlla wakkiilu ci moom itam li ñuy wax tawaakul itam buñ ko mooy yem rek ci loolu waaye li sababu saxir sam yàllaa ko santaane te bëgg adduna yi doxe noonu sëriñ Tuubaa leer na lu ci lu bari ci li suñu doom tubaab yi mu dénk leen adduna kon loolu itam lañ ko xamee noonu kon ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan ci yàlla euh, nit ñi gën bàyyi xel gën a wattandiku ngeen xam ne jàngoro ji jombut kenn kenn koo xam ne mën ngaa garanti sa bopp ne dañ ci mucc itam amut yàlla képp ci mën musul kon nañ dellu ci yàlla tuubal ko sàkk sarax jéggoo te dimbalante suñu biir loolu mooy ndénkaane sëriñ bi ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf waan kat wax na ne wattaqu fitnatan laa tusibanna allaziina zalamu minkum xaassatan wa'lamu anna llaaha shadiidul iqaab wartaliku leen fitna ndax lu ya li wolof di wax ay lu ci bopp borom ko jàpp ne da ci mucc itam yàlla mën naa def ci dogalam mu agsi ci waaye na nañ xam ne du lu ñu daw nag ndax alam tara ila lazina xaraju min diirihim wa hum urufun xasara al-mawt fa xaala lahum llahu mutu kon dee kenn mënu ko daw kenn mënu ko daw aynama takunu yudrikkumul mawt walaw kuntum fii buruujin mushayyada bu fekkoon da ngaa tabaxoon ay xunt yu xóot suñu borom fekk na de si biir xunt ma rey kon loolu lépp ay sabab la waaye li ci sababu saxir na ginnaaw buñ delloo ci yàlla wakkiilu ci moom itam li ñuy wax tawaakul itam buñ ko wax mooy yem yam rek ci loolu waaye lii sababu saxir sam yàllaa ko santaane te bëgg addina doxe noonu Sëriñ Tuubaa leer noonu ci lu bari ci li suñu doom tubaab yi mu dénk leen adduna kon loolu itam nañ ko xamee noonu kon ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan ci yàlla euh, nit ñi gën a bàyyi xel gën a wattandiku ngeen xam ne jàngoro ji jombut kenn kenn koo xam ne mën ngaa garanti sama fi ne dañ ci ci tam am yàlla képp ci mën musul kon nañ dellu ci yàlla tuubal ko sàkk sa jégg te dimbu leen di suñ biir loolu mooy ndénkaane sëriñ bi ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp